jamono bi ma nekkee ci géej gi yonent bi laa àndal ak alxuraan ak ahlu badrin jamono bi may wër ci géej gi man xaadim maa ngi dem su ma demee ñibbisi mais ñu sànni ko ci benn île bu garaaw waaye nañ moon di dëgg ñu sànni ko ci île bu metti Sëriñ Tuubaa nekk fa ak métti tam la ma ca gën a triste la gën a métti weeru koor bu jotee dog day jot doom lu mu doge xobu garab yi tooy lay jël nag nag ndox ma ca ne muucu ko pendant sept ans fan lay lekke ku koy fóotal mu demal pour jaam loolu tax pour xeexal l'islam loolooy waral suñu relation ma bëgg a seexul xaddim parce que victoire l'islam la bëggoon te am na ko la preuve am na ñu fi nekkoon daan def lu ne ci dëkk bi ñu baal ma bëgguma turu kenn tudda turu kenn parce que ay maamu jàmbu lañu doon mais kii ma ci gën a jàpp mooy sama maam la la Dior parce que sama maam la ci côté sama yaay Lat Dior Diop da nga dégg tey la mu tey la màggalu Lat Dior amul amul tey yi la ni màggale Lat Dior kaari jëm fa amul màggali Samori Touré tey la gàmmu Samori amul mais Seexul Xadiim mu demoon géej gi balaa nga xam ne yàlla may na ko rek màggal jot nga gis gars yi fëx jëm Touba xanaa nag dëgg yàlla junniy nit ñaari junniy nit ñu bëree noonu xanaa ñëpp dofunu nag bay dem fa nga xamante dara ne waaye xam ne seexu naa Seexul Xadiim yàlla may na ko ta nee woon na malaka nii duniyaa wa uxraa indi samadi ne na nguuru àddina ak alaaxira man Seexul Xadiim téy naa ko sama loxo looloo waral relation boobu nekk entre man ak ñoom kër Seydi Hadji Malick mam Maodo si ku nu xam Cheikh Tidiane mi ngi fii ci biir xabru bi sama baay dence ko sama mag la sama pap mi ngi ko tuddee woon al maktoom mag la am na ku tudda Mansour am na ku tudda Ibou Sakho ñu ngi kër Massar gi waaye xoolal Seydi Hadji Malick dafa nekk Tiwaawan gii di la décortiquer kër Seydina Mohamed di la wax la fexe moo tax waa ji doon wax naan gàmm dafa araam dafa juum maa ngi jàpp benn bayit min baadi ma xat xalat waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sayidal ummami min baadi ma xat xalat dégg nga Maodo ma nga ca Tiwaawan nabi ma nga màkk Maodo nee na gannaaw gannaaw soxna si dafa ëmb ëmb na ba am juróom benn weer yëgul ni dafa ëmb xamul da mais leer moo ne ci biiram waaye ñëpp yamunu ñëpp yamunu leer gi ne ci biiram ñu ñu baal ba suñuy jigéen ku ci wadoon lor ñaari fan rek nga commencé def loola neex commencé say caprice lii bu ma xëyee damay nangam lii nang am déet loolu la ñuy def mais xoolal soxna si ëmb na ba am juróom benn weer yëgul ni ëmb na mais am lu ko ne hee ëmb nga xummilti ëmb nga badaran weer wi ëmb nga weer wi moo ne sa biir kan la yonent bi alayhi salaatu salaam seydal umam yi mu ne ko sangu-sanga yi ñoo ne sa biir mu ne ko doxal ndànk nga def ndànk mu ne ko maa ngi lay wax sax isa wadaxtu sammi yi muhammadan mu ne ko bis boo wasinee nañ ko tudde sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal mais Aminatu xamul ki muy waxal kan la gisu ko ndakate xeeru màkk yi ñoo koy wax mais Maodo ma ca Tiwaawan dégg xeer yi ca màkk di wax kon kooku mooy kan Sidil Hadji Malick Sëriñ Babacar Si borom bone kaara beeg sàkkara yàlla beeg ku yiw ki borom manto bi ku naan ñëpp yam xamoo la xew ñooñu luñ la wax mu am looloo waral mu am victoire l'islam ma bëgg ko cene ba noonu yeneen tarixa yi noonu lépp noonu même ñi nekk ci jàngu bi bëgg nañu leen sopp nañ leen parce que ay nit lañ comme ñun te ñoo bokk lañu loolu defe naa foofu laa ci yem waaw temu temu conférence bii moom laay wax thème bi mooy solidarité lañ wax dimbalante lan mooy dimbalante may nit xaalis baax na de mais man fi ba jàpp dimbali nit ñu wàññi wax ci léegi coow li bëri na pour nga dimbali nit da ngay gis ku tiim nit sosal que nit ñi fenatu nan lay sosal sosal que lu nu wéng mun ne ci réseau sociaux yi kooku dootu mën a ti génnati kon dimbali woo ko yaa utal fu mu yem yaa ngi ko utal fa nga xam mënatu fa jaar moo tax man li ma jàpp ci nit man gëm naa ni yàlla moo yore xéewal gis nga ba tabax yi li muy rëy rëy gaa yi ci suuf lañ jëm de loolu la waaye mën a wax ci suuf nga jëm loolu la waaye mën a wax la la fay topp benn morceau bu weex tàll ñu yow say tànk moo la fay topp am na xarit bu la fay topp muy jëf ban jëf la na nekk bu baax bu dee safaan ba doo doo am jàmm soo fa duggee ba yàlla jëflanteeg yow yàlla xam gi mu xam ne dina jàpp gaañ moo tax mu toog fu mu toog mais man solidarité man Ibou Seyni Thiaw laay mu xeebu mii sama xam-xam bëriwul la ma ko jàpp mooy nit ñi nanu maandu ci nit ñi bu la nit neexul maandul ci moom nga jàppale ka parce que léeg-léeg nit sosal benn nit mu deram yàqu du mën a génn du mën a dem fen te sénégalais bu la nee bu la nee entre nous bu waxul dëgg entre nous fekk wax na ko gars yi so so la nee gars yi ne neen mooy gars yi jàpp ko bul bu bul rëcc di seen gars yi jàpp moom mooy aswaay jàpp ko moom mooy gars yi dimbalante man gisoon naa sama baay bi ma yar ma miin ko muy Serigne Ousseynou man ci moom laay jëlee exemple Serigne Ousseynou laay dimbali na ay nit yu bataay ma xam Serigne Ousseynou laay digganteem ak ku naan Michael Jackson am naa lu ma ci xam ak ay acteurs u nangam ca Amérique sa Los Angeles ma ma am Alaaji Fall xamal ma ci waaye xamoon naa ni Serigne mi ngi dimbali ay nit te dimbali bi mën na le dimbali te ke ki mu dendeel du ko xam ki mu yónni sax du xam li mu koy yónnee noonu la waaye gars yi bala laa mbay nga taxaw ci mbooloo naan samaam mooy rey gaynde gi wóor na que li ma lay wax lu dëgg samaam reyul benn gaynde samaam rey gaynde gi ci biir ñi nga génn ay millions di baatare parce que lay indi loolu ñàkk xam sa bopp ñàkk xam addina moo tax man solidarité xaalis moo ci mujje ci man dimbali nit ki ba mu nekk nit parce que balaa ngaa xam ni nit mooy nit nga xam nit ñi bu ñu waxee ku wax feeñ nit da lay romb sol sagar sol dàll nga defe ni dof la fekk dafa feebar dof day sol yor kër yor xaalis bi di fekk dof la parce que xamul li xew su waxee musiba am kon nanu maanu ci doomu aadama yi man loolu laa jàppe solidarité ka nga war a dimbali man jàngal nañ ma ko ni may dimbalee nit xam naa ko te benn bruit di am saa bàyyi neewoon na ma ci gàttal bu la kilifa seet see min wi jëm une heure du matin namu la am na lu xew amal xel xam nga li may wax copain nga def nga defal li nga koy def loolu rek la sëñ Babacar si sama maam neewoon na ku amul parfum dendee la gars yi ñu ngi koy xeeñ mu yóbbaale la nga am ci sax waaw sama ivoirien bi non du yomb nit ñi mayaa pour ñu faj leen léegi yombatul parce que nangi nañ faaw ba pare dugg nañ ñi dugg ci mbooy gi bëri na te am na ñu ne leen dugal ca mbooy ga mooy wax lu leen wóoroo mu def posan ci ñoom indil leen problème dootuñu dëppati mais ñi am sens daañu dëpp ku war a tekki di nga tekki yàllaa yor tekki te kenn du la dimbali ku dul suñu borom subhaanahu wa taala pour nga dimbali nit mais ñun sax amuñu droit dàq nit dafa am ku ma naan àndal bu njëkk lu réer sama kër moom la lu réer sama oto moom la lu ma fa teg mu jël ko ni ma ko mujj faje mooy dépense kër yëpp laa ko dénk mu jege jëlatul mais bu fekkente ne ku ñëw ci yow bon nga dàq ka di nga dàq bay bëgg a dee moo tax nit ñi pour nga dindi seen jikko yi lu jafe la xanaa yàlla rek moo lay dimbali waaye ku baax yàllaa la baaxal xanaa nag lenn am nañ ko nga toog ñaan yàlla jubal nit yàlla nu yàlla jubal ñun ñëpp te defar suñuy xol ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam am de ko xam Ibou Seyni Thiaw samay kilifa rek fi ne xaj na yàlla moo ñu def man sax li ma naan xale yi du ma sëriñ baay Fall laa buy dox rek te bu nu bu ngeen jógee fii cinq minutes ma summeeku jaar fi neen xam ne Baye Fall ngay dem mayaa mi xam na mu baax a baax xam na mu baax a baax li ma gën a ya suñu borom dimbalee ma dama fexe ba yar yar sama bopp xale yaa ngi nii su àllu xéw lu xéw lu jotee amul sëriñ bi ñooy nekk parfum bi may xeeñoo sama oto yi sax ñoo koy bokkandoo parce que nag ku naan sama sëriñ mënuma ko gis fii ci àddina yow man xëy ñëpp fay dajale est-ce que di nga gis wóorul li wóor te woor mooy événement bi li ma ci kii yar laa ci jëkk oote amul caaxaan am ñi ma xam xam nañ ma amul folklore amul caaxaan yar la ñu fa oote parce que place ba nu jëm dafa sell lool ci ñun te xam nañ la fa ne moo tax maa ngi woo àddina bi yëpp yëpp yëpp ku fay ñëw àndal ak yar rek laayeen moomu ko tiijaan ak moom jullit ñëpp ko moom ci gàttal nit ñëpp ko moom li may ci nit ñi rek mooy yaru ak dar rek yëngu-yëngu fajul dara maa ngi kay ñaan yàlla ak sama maam yii ma fi tudd comme ni nga ko waxee dara rek lañ fa soxla ñun. ak toog déglu bu baax a baax ku fi ñëw di nga dégg xam-xam nag incha allah. gëléem bu demee gànnaar tukkiwul dafa ñibbi de am de nga dem gànnaar nga naan dafa tukki fa la dëkk ku xam histoire yoof xam aéroport yoof xam fee ñu naan xunta ma am na lu fa ne la nga xamante ni boo fa toogee soo amul woon borom kër léegi nga am borom kër soo fa toogee boobu bañee am wujj sax soo soo ko fa ñaanee di nga loo bëgg ci àddina soxna saa ngi ree de loo bëgg ci àddina soo ko fa ñaanee di nga sama maam avant muy woote daan ci waxtaan li tax ñuy dem xundama lim leer ga moo fa nekkoon junniy at avant foire bi junniy at mooy fa làmb ba naan nii sawu beeg riir mi nan ko xool xool ci xéewal ya dellu xool làmp ngor baag na muy wëre leer ga day wane limaamu lay am na ñu ni am na navire espagnol ba fa daan teer bu tuddoon Almadios c'est-à-dire Almahdi amoon na fa à l'époque bu daan indi dundu Sénégal mais am na lu fa nekkit ñaari géej gi def nii géej gu jigéen gi jaar ni yaraax tey fa laa xëyoon ma nekk ci géej demal may toppatoo beneen bu góor bu jaar ni jëm Mauritanie bii jëm Guinée Bissau ñu ne leeru Mahdi yi fa lay mujj waa kër yu seer yooyu lan moo bërëb ba tudd Almahdi lu tax lan moo tax te am na volcan yi fa di nelaw lu lan moo ko fa nelaw sama leeru maam moo ko bloqué ba génnul foofu la bàyyi laay jóge ànd ak foire bi ñi nga xamoon bu njëkk libu yi ñu ngi ko tuddoon toolu xamsaan xamsaan libu yi daan fa bay fa la ñuy taxane fa la ñuy defa seen boo demee ba ci école japonaise bi am na benn guy gu fa tëdd ko fa jaar seetu li ma wax léegi sëy naa li maamu fa la ànd ak nijaayam bu ndaan maam daaw dondooy mu ne ko maam nijaay mu ne ko sang bi alasaan mun nga ak biig de génn naa wàll bu jigéen bu génn àddina mun nga ah ñu toog benn fan ñaari fan ñetti fan muy yaayu Seydina Limaamu muy yaayu Seydina Limaamu muy maam Kumba Ndooy Laay mu génn àddina xaal bi jàpp ko mu dem ci géej ga toog xam nga rek foo dem di nga ko fekk wax am mag mu naan ay rab a ko jàpp li yaayam génn àddina ko jàpp fekk kenn ku ne la ngay yëg yaa ko xam fekk yëg na ni am na lu yàlla def ci moom Serigne Fallou sama maam da daan wax naan yàlla balaa mu laa defal dara dalay def dara est-ce que dégg laa yaayam nelaw na mu toog ci tefesu géej gi ay malaaka romba yor benn peñe di am lu ñuy wax ñu naan laa ilaa ilaa lii leen doon wax moo ne ñun laay bu ñu yëbbi néew ci baat bi leen lay amul waxtaan am déet bi bàyyi laay jógee foofu ñu teg ay fan ci la woote aajiboo ji mais avant woote bi boobu ay xale lañ mais falan daan jël seen jaasi di taxani gars yi bu ñu taxanee ñi bàyyi laay ànd ak ku ci di nga indi say mat mais bàyyi laay du indi jaasi rek lay yor ñëpp yamunu ah ñu baal ma ci wax ji de bu nu woon état d'urgence am na policiers yi génn gendarme yi taxaw ku jàpp doom Macky Sall di bàyyi waat mu ñibbi doo ko yóbbu de am déet waaye ñëpp yamunu noonu la foofu la yàlla de bi bàyyi laay defee loolu ñibbi si yoof baayam ni ko limaamu ana la ma la yónni woon mu ne ko bàyyi mënumaa gor benn garab garab li anal as jaara tu sajjidoo nii wa tu sallimoo nii mu ne ko garab gu ma jub mu raay ma siyaar ma sujootal ma du ma gor benn garab goruma benn garab kon looloo waral ma taamu place ba ma def ko fa def fa avant premier appel Seydina Imam Allahi Mahdi muy cent trente quatrième anniversaire xam loolu du ay caaxaan cent trente quatre du du ab du du ay caaxaan bi ci des moo nami fee bàyyi laay tëdd ci géej ga géej ga ndar la départ lekk na ba lekk tëngéej lekk cimetière yi te baare nañ ko président de la république def na fa lu bëri pour géej gi bañ a affronter cimetière mais lekk na lekk na armeel yi mais ñun Yoff baare woon ko fa lay fekk sama maam romb ko dem demaat yoonam bu doon dëgg bu doon du dëgg géej géej jëkk def réaction def li muy def lekk ka sanga baa ngi fa tëdd bi ci des am na teen bu nekk foofu teen boobu bu aj màkk jotee doo seen ndox mi day dem su aj gi jeexee nga seen ndox mi ñëwaat kon kooku la mu waxoon ni maa man mën a démb wala tey kon dëgg la looloo tax ma taamu faar bi di fa def yooyu incha allah non non bii mooy euh, huitième bii mooy huitième waaw dama ko daan def ci ay ruq di ko def ci ruq parce que boo dëkkee ak ay kilifa da ngay yaru bu la àddina jay bayra toppale nga affronté leen ci suuf nga jëm sëñ Fallou sama maam daan na wax yuréet yuréet pëng toq-toq gàññ maa ngi koy wax nag ci barke sama yaay jii toog ngeen baanu entrepreneur sama yaay jii toog mooy sama moom laa fi des sama yaay dem na ma des ko muy sama yaay mais li ko naqari li ma ko mag rek ko naqari mais <laughs> maa ngi koy wax ci barkeem mais man li ma bëgg dëgg dëgg li mu laaj mooy ku fay ñëw amal jàmm rek loolu laa soxla ci barke thème bi solidarité loolu la ñuy wax dimbalante nit ñi nag dañoo tax loolu am naa ci ay plusieurs questions sax ay réponses kon plutôt dañoo defe ni dimbalante oo benn palma jox ko un million ni ko demal demal nga dugg ci gaal yi nga dem defe na ni loolu mooy dimbal dimbalante mooy nit ki man ni ma ko jàppe ci ñi may àndal mooy nga maadu ci doomu aadama dimbali nit parce que léeg-léeg nga sosal benn nit li naan tombe moo waral ay gaaf léeg-léeg nit ci bëru di déliré tudd turu kenn far mu jaare fa gaañu ni moom de bi muy gaañu diw la doon tudd yaa may dégg aha mu ni moom de bi muy gaañu diw la doon tudd ñun diw a ko lekk léegi kooku famille am dootul génn kenn dootul wax ñu leen daw loolu dimbali woo ko yaa ngi koy rey xaalis moo mujjee ci dimbali yi bi ci des ci biir thème bi mooy bennoob jullit ñi dialogue interreligieux mais pas dialogue islamo-chrétien wax naa ko Bataay wax naa ko TFM wax naa ko Sen TV euh, dialogue islamo-chrétien man je ne suis pas d'accord lu tax koo xuloo du la may ngalax ñun jullit ñooy naan ngalaxu catholique yëpp koo xuloo nu la lay may ngalax kon amuñoo ak ñoom benn problème li ñu war a def mooy dialogue interreligieux nañu ko def comme ni ko sama papa defee woon jël kilifa diine yi tuddee leen doom man daal loolu laa gëm te ku ma xam dëgg-dëgg ci loolu laay dox bu baax a baax mayaa bu baax defe naa ba ma oowee sëñ Muntaxa la mat si bi tas ma oowee sëñ Bay si Mansour yëf yi jeex cene ba noonu tuyaawan noonu te fenn fu ne te Touba day sama pay ma dëkk fa xam fa lu bëri ñoom tamit ma oo leen oh kuy nit même catholique yi nanu ñëw toog nanu ñëw toog ñoom ñëpp ci lañu bokk ci réew mi lañ bokk gannaaw loolu lépp jàmm rek lañ ciy sàkku rek moo tax yàlla yàlla may jàmm ñëpp ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam man de li may ñi may jëkk oo mooy mooy population bi population bi laay jëkk oo bu ñu dof bu ñu dof population bi laay jëkk oo bu ñu dof dof weesuwul nit bu la soxlaa di la karri karre di la oo foo ne mu fekk la fa mu falu boo koy oo fii ba l'an deux mille cinquante cinq du la jël yaay am la nga téye sa bopp ñetti ñetti ñetti f la ñetti f la buñ la falee fuuy foleeku képp kun ci fal fal ef la nga fuuy folleekoo cee tegu te nag ak lu mën a xew population bi laay jëkk alerte xam nañu ne xew duñu ay dof xam nañ li xew ci dëkk bu leen kenn xeexloo bu leen kenn wax waxloo safaan ku ne ki nga sentir demal nga def ko amal ngor nag yow mi ànd ak politiciens yi doo am sa bis nga dem wax leen que nu jox la enveloppe nga taxawaat di leen xas yooyu du yëfu nit soo leen bëggul bàyyi leen bu ñu la joxee bul jël mais gars yi dañ lay dañuy couloir dem seeti gars yi ñu jox leen enveloppe bi bu ñu paree di leen saaga man je ne paa pas d'accord bal seeni Seyni man man laa wax sama euh, man mi la engagé man la tey jii bu ma borom réew mi oowoon làqatuuma caméra yi yéen laa jël ngeen filmer aller retour ba xam lan la ku la ci oo di kilifa am nga droit uyu ko mais nañu ko teg ci ngor am na jogante yu ñëw mais kenn ku ne ka nga sentir demal nga def ko man taalibe yii may àndal kenn ku ci ne dama lay bàyyi sa liberté bopp nga def la la boo nu fekkee bi sax dañuy werante di werante ba asamaan set kon man gisuma politique euh, jàmm rek ci am parce que nag soo jàppee ni politicien du wax dëgg juum nga soo jàppee ni politicien gëmuñu dara juum nga léeg-léeg imaam xutba ci jàkk ji na ngeen jub ak juba jot jub leen bëgg leen lu baax dee leen wax lu baax ci xutba yi ci minbar bari mais bu nu sëlmalee gars yi doon julli am ñu sàcc daal lay léegi waaraat lu muy jaay am déet koy reetaan yow dëgg la am du dëgg sama soppi imaam day sëlmal am ñu génn an sama daal fekk gars yi yóbbu kon ñi sàcc daale yi waaraante bi ñu leen dara noonu la politique mel politique du lu araam lu baax la ki fi ne te jigéen dañ leen ko ñaanal yi muy liggéey mu egg ak jàmm te yàlla may ko jàmm parce que boo amee jàmm ñu am jàmm mais nit mënul toog ci benn bërëb ni nga jógal force fii laay toog déedéet ñun ñi leen faral nanu ci maandu te tamay oo ñenn ci ñun ku leen bëggul buñ la joxee bul jël buñ la ooyee bul dem boo leen bëggee ne buñ la ooyee demal dara newu ci kuy voté na nga wut jàmm ay na nga xam ngay taale mais bul xam fu muy fayee na. da xam nga moom xam nga sàmm ñoo xamante ñoom xam nga ñoom seen biir xamante nañ bu baax xam nga tey soo oowoon tey euh, borom réew mi ne kaay conférence bi day am problème mais ñoom seen biir ñoom xamante nañ. man daal li ma leen wax na teg ci maandu teg ci jub teg ci la nga xam ne du andi na ëllëg man loolu rek laa leen ciy conseil parce que fi mu ne coow li bëri na lool te genn wàll gi wax yëpp seen intérêt la ñuy wër mooy li ma wax ci commencement bi koo ci topp ñëpp du ñëpp nag koo ci topp lijjanti bu toogee billaay boo ko du la jël léegi yow doom fu leew ah des fois ñi koy xeex des fois dañuy mer rek mais ñëpp yamuñu xam nga nga oo ni teral ka man tey ma oo jekk saak oo la kaay nga ñëw sama kër ma teral la man jàpp naa ne dara nekku ci parce que am ak indi ci àddina la ne nit ñi yow compliqué rek mais am indi te ñi ngay yor dara jëy alxuraan kun ci waawoon jox di nga jël kun boo gisee commencement man la man Ibou Seyni man la engagé buñ ma owoon tey damay jël gars yi ñu filmam aller retour parce que gisuma ci benn jafe-jafe des fois ñu sànni ñu ñu sànni ñu benn xeer ñu ne sëriñ si dañoo bëgg lu yomb ah, ah. ñun suñu baay yi mu daan dundal ci nit état sax mënu ko ba fii may wax ak yow man rek li may dundal ci nit état mënu ko déedéet soo demee Touba la fa Serigne Saliou def état munu ko xel koom mooy lan xel président bu amul xel amoo koom doo dem Serigne Saliou loolu la créé xel koom mooy ay daara yu yaatu te la ne ci milliard lañ fay dundal ci ndonga gaa yi di wax mënuñu ko boo demee Tivaouane loola fam daa sëñ Bay Si Mansour daara yaa ngi fa kër Pape Moulay Thiaré Habib daara yaa ngi fa man sama kër samay kër ay daara la te kenn dimbaliwunu dañuy ñafe di liggéey di uti di tukki di ñëw amul lu yomb lu ñu dunde la preuve bokk nañ ci ñi dàq maye ci àddina bi état bu état bu ñëwoon ci ñun ñu wan ka ni ñuy joxe nan la donc man loolu laa jàpp àddina bi defe naa am ak indi rek a fi am xéwal nag kenn rek a ko yor yàlla moo yor xéwal bi di ko jox ko neex yàlla noonu yàlla jox xéwal rek laay ñaan ci barke yonent bi entre quatre heures et demie dix sept heures quatre heures et demie ba dix sept heures daal man euh, dix sept heures pile dina ma fekk ma taxaw incha allahu rabbi incha allah ñu ngi waaj appel bi merci beaucoup appelu bàyyi laay ba ca yoof soo ma fa fekkee sax doo ma xàmmee ndax nekk taalib soo ma fa fekkee maa daan nekk sama kër papa Ousseynou laay di jël matta yi di yan di ko def ci camion yi maa daan dàq nag yi maa daan jël di xamba dama yàlla baal maa daan raxas toilette yi man ak sama équipe buñ la nekkee sëñ bi la doo ko xàmmee man ba ma xamee ni kaala ci ndigg bu jëkkee ci ndigg dina baax ba tey mu ngi sama ndigg jógeegu fi kaala gu waaye gars ku ci man ñaari baat gars yi dar la nga defe ni yéeg nga jël fa tey toog jaaxaan du foofu ma nekk ba foofu man je préfère samay magang fi wax naa xale yi may àndal lépp toppatoo na ngeen topp mag ñi moo waral shérif benn bis rek mun ma da am ay gan xam naa la demal nga fee ca bâtiment bee nga appel sëñ Modou Kara nooree ni ci la ma jëkk a maye oto oto yooyu yëpp ma jële ko Touba ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu waral bu appel jotee waa doole lislaam di fa def mber mberdeele di def berndeel yi foofu di ka fa def suñu ka fa defee defe naa ku ñëw dal ba rek xam nga maa ngi leen ci oo yéen ñëpp su boobaa bu ngeen fa ñëwee dina dinaa ci bëgg lool lool lool lool euh, bi ci des may tàggatoo sa Saddiq àdduna euh, Palme ku fi ne di nga ñibbi man gis naa kuy yëgale anniversaire am ba ba gis naa ko li may wax gars yi raxas leen fii boo raxasee fii doo am benn jafe-jafe soo raxasul fii dangay ngay xëy di mer sa dënn bii tàng jër xam nga lu gars yi nga mer ku sol sax nga mer te kenn def lu ko waral looy feebar feebar la bu ne ci nit te nag yàlla na ko yàlla faxasal te nit a ngi dox di préparer birthday am anniversaire am di ko yëgale nit a ngi dox naan damay takki jabar samedi ñëw leen libaas ki ne ba naan damay ngénte altine ñëw leen mais ma leen di laaj yéen ñi vous les journalistes la ndax mus ngeen gis ba ngeen daree tàllal seen micro koo tàllal micro mu naan maa ngi leen yëgal ne alxames laay génn altine na ngeen ñëw amul am de sama waa ji xam nga amul fen kon dee dafay bette bette googu muy bette la nit ñi war a bàyyi xel suñ ko bàyyee xel jëf ju baax doo doon jëf rek diñ ci gën a jëf fii may tëjee Ababacar Saddiq dafa ñëw ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko damaa gént biig benn dexu deret dex gi mu ne ko ñaari caaliñ ñoo ca benn garab ne ci digg dex gi léeg-léeg caaliñ bi sukk ci dex gi naan ci deret ji yéegaat toog yonent bi ni ko aaxiru zaman ni ko aaxiru zaman mu lan la ko tegalaat mu ne ko ma géntaat ñu baal ma ci kàddu mu ni ko ma gis benn tabax bu rafet dafa mel ni dañ ko raaxe or ak urus lu fa xew mu nekk ko ma seen ay golo yu toog kenn ku ne wan sa morom gannaaw yor benn fruit di lekk ku ne sëgg yonent bi ne ko axiru zamaan a ngoog mu ne ko ah loolu lan la nekk axiru zamaan mu ne ko mujjig jamono jàkka yi day bëri xeex yi day bëri xuloo yi bëri ki bu kii noddee heure bee kenn nodd heure bee contrante am na paa bu ne woon fii su ma saan nodde tàkkusaan fii jigéen ñi dajaloo di def seen tontine fa lay romb naa leen ndax dégg ngeen sama nodde tàkkusaan yi mu leen toj naa jàkk ji parce que moom loolu looloo ko ci neex noot gu neex googu moo ko safoon moo tax yonent bi nee na su ngeen bëggee mucc la ko daloon nanu ko ci roy même boo dul jullit roy ko ci yonent bi dafa rey gëleem toggalu gëleem gi mu ñor xelam ni lii de balaa ma ko lekk jox Ababacar Saddiq moo ma gënal mu jël ndab li rek takk jox Ababacar Saddiq Ababacar ni ndab lii su ma joxoon Omar lu jóge ci yonent bi yéene naa ko Omar Omar jël Omar ci Ababacar jox ko Alioune moo ma gën a li jóge ci Omar ma jox ko Ousmane moo gën Ousmane nu jox ko ndab li mu kontaan kontaan bég ni la ma doon ñaan yàlla may na ma ka dama doon ñaan xaalis pour toggal yonent bi ndab lu mel ni xaaral ma jël ndab li joxaat ko rasulillah gis nga ndab li mu Ousmane jëlaat ko joxaat ko Seyduna Muhammad kon innamal ahmalu binniya wa innama li kulli imrin maanaam yéen a ju baax nag yéen la mais yéen vous les journalistes naa leen poser benn question yéen tamit bëgg yi ku ma ci man a répondre répondre waa ji dañ ubbi jàkk ji fekk mu dee ci jàkk ji fu mu jëm avant ah, je pose la question mooy tëj kii nekkoon ci baar bi xaritam la ñu mën mënee ba yóbbu ko fa mu fay mandi mu dem di ko dimbali dee fa léegi hadis moo ko atte innamal amalu bin niyya wa innamaa li kulli leen intention ci laay attee nit intention ba ko yóbbu ki dee ci jàkk ji dafa ñëw kaalaw jaaxaan yor nga dem kurus di xaar gaa yi sëlmal dam Moussa Thioro di jàkk ci ko asa kon intention rek moo am solo yàlla nu yàlla jàppale en tout cas sama xol sedd na asi bég naa lool nit koo xamul tey peut-être ñu xam ma man peut-être du ma leen xam mais man am naa yaakaar te loolu la ma yàlla bindee ñi ma xam mooy maa leen ñaanal ngeen am jàmm rek maa leen ñaanal ngeen am sutura ñaanal leen ngeen am xéewal métier mii ngeen def yàlla leen ci yàlla def lu seen jort métier mu naqari la parce que bu xeex amee ngeen di jëlee information lu ne mën na la fa dal te yéenay jéngu dem euh, te it la ma ci seen mooy metti na te léeg-léeg ngeen dox ba sonn kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla mi yor xéewal te di ko joxe yàlla leen yàlla may xéewal yal na leen yàlla jàppale yàlla sàmm leen ba seen organes yi mu nekk leneen lu kawe seen jot dafa am ku ma koy doon wax ca New York ndeysaan Carlo di fekk ma fa ci biir immeuble bi nga xamante ni fa kii ba am euh, fa la boo demee vraiment seen station yi boo fa duggee da ngay bëgg Carlo di fekk ma ñu war a def benn émission foofu man ak ñoom ak ku naan Basirou ñu war ko fa def ma dégg Carlo naan ibi seeni kër Seydina Limaamu biir New York City di wax la mu fay wax organe go kooku bi ma ko nuyoo dama sama rangooñ sax dafa tuuru parce que dañ daji woon ci benn baptême mu yor benn appareil bu ndaw li ma sëriñ bi ñaanal ma yàlla def ñaan nga yàlla ruus ma sa nag wax dëgg dëgg neex yàlla ba ma ci ruusee yàlla defal na xéewal ah man tamit loolu rek laa leen di ñaanal te incha allahu rabbi su ngeen fi jógee bind leen rek yàlla na gi ñëw si yéen yàlla leen yàlla ubbil ba lépp lu ngeen ci bëgg yàlla defal na parce que journaliste métier bu noble la mais am na lenn ci ñoom nanu moytu collé coupé collé coupé collé sosal nit indil ko pro dara li wax dara du ci dëkk man mii sosal nan ma fi ay yoon yoon man damaa ragal sax nee naa xale yi bu ñu génnatee dem ci xew benn jigéen bu ñëw di fotoog man dàq leen ko bu dee ñetti jigéen nan ñëw te defe naa am na lu ma ci dal fan yële am ku ma oo vidéo call te maa ngi jóge ci ay jàng bég mel ni dañ ne ma xoolal maa ngi ànd ak sama doom dama xool mii vidéo dama dëpp bi ma ko dëppee sama yaram dafa daw ma dégg mu am kilifa gum ko def may lijjanti ba jàpp ndaw si kon yooyu amul solo yàq der baaxul looy bañ ñu def la ko bul ko def kenn loo bëggul mu dal sa xeet bu ko yéene xeetu kenn lu waay ji loolu ngay góob mënuloo bay galaas góob jot nga góob kaani boo bayee galaas góob jot galaas ngay góob bu dee kaani tamit noonu ngay góob suñu bëggee nag suñu affaire baax nañu ubbi suñu xol yi man loolu sama waxtaan la bis bu fii boo ko defaree doo am problème doo am benn jafe-jafe te bu leen kenn stressé man dama yor dama yor ñetti gàllaaj yu foor benn bi man mën naa la ñaan nga milliard léegi milliard bi mooy doylul sa juróomi dërëm yi na gën bu Macky Sall gëmal sa bopp gëmal sa bopp bul soxore kenn bul ñee kenn bu bu guddi joree ku giix giixal ku seex kir naa seexal kir naa kir naa soom bi ak bu yàpp amul seexal rek loolu képp la loolu boo ko defee da ngay noppaliku ci àddina da nit dafay modeste man mën naa fanaan ci poste bee sama yoon new ci pourtant je suis le fils de mais il faut être modeste dans la vie yàlla noonu yàlla jàppale ci barke Baye la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu